souvent dañuy dem di di échapper à la réalité euh, guen di fréquenter ay nit ñoo peut-être que influence bi ñuy am euh du du influence bu baax on a aussi parlé euh, des agents de proximité ASP je pense que Jotna euh, li ñen taxaw ñu créer bobu le kuréel mu mu un peu ci quartier yi ñu jege nit ñi euh, moo gën ñu nekk ci mairie yeeg ci tribunaux yi euh, c'est-à-dire ak ci tali bi lan lañ fay def <laughs> proximité c'est-à-dire da war a jege population bi boobu ak léegi bi ñu leen bi leen fi tegee euh, gisuñu seen njëriñ parce que fi ñu war a ne nekkuñu fa ah mais parce que affaire yaa ngi xew yow defal li war jëral say mesures tout de lu ñuy xaar boobu ba léegi kenn mënu tëdd si jàmm kenn mënu nelaw si jàmm doy na génnee sax foog ku topp sa ginnaaw sax nga foog di tey mu mbéj la. doy na waaw c'est c'est c'est très grave mais tax sénégalais yi léegi di fayal di fay di fayonteel doo di fayul seen bopp. di fayul seen bopp bien sûr tu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. bi nga xamante ni gars yi dañ koo rey ba taal ko. ba taal parce que mer bi sénégalais yi denc moo. dafa moo moo moo moo doy waar. gis nga sénégalais yi buñ agresseur buñ ko jàppee wala ñu ne kii reykatu nit la non soo moytuwul déggu tribunal bu Pikine gars yi taxawoon ci bunt bi foofu xam nga la leen doon wax. Mhm. non na na leen juge bi may rek quelques minutes rek ak ñi nga xamanteni ñom moy les sept présumés nañ leen may quelques minutes mu leer na ñi kuñ ci jàppoon dañ lay. dañ lay day day nourrir en en fait. Ah, envers bi ñuy ñëw ñu def leen ñu escorter leen. parce que sinon. ils étaient cagoulés. mais le septième lolu papa am wax parce que papa am na comme dem nañ dévoiler nañ identité te ginnaaw raay la dëkk ñun ñëpp ginnaaw raay xamante nañ mhm. dévoilé nañ identité bu ko bàyyi woon ci kër gi dañ ko koy fekk rey dañ koy rey d'autant plus que bu donc donc man je pense que euh, fi ñu toll nii jamono jii bu ci état waxul maanaam justice populaire moom moo nar a am mais maman ay aussi waaw waaw waaw waaw fële euh, baar mi ñom ne duñ dëkk ak ray nit et que dinañ def de tout pour xam kan la te buñ ko xamé duñ ko yob police sinon mom na yob bopam police lool lañ wax. ci TikTok ñoom ñëpp benn doot la lay netali sama ben xarit momu ko doon momu ko doon netali barki dembu suñu ben way ko xamanteni xam nañ ko à ginaaw ray dafa am ben ben ben ku mu ray père de famille. devant ses enfants. ñu jàpp ko tëj ko 3 ans. 3 ans la teud génn temps yële. muy doxantu ba buntu kër buntu kër ñooñu noonu mooy ki mu rey seen papa. Mhm. taxaw ci buntu kër gi taal si cigarette am di toog. doomu paa bi daf ko fa fekk brique la ko yan. Ah. brique la ko yan. Ah. gaa yi jàngat gi jàpp leen yóbbu leen yóbbu leen xam nga doomu paa bi lan la wax commissaire su boo nga tëj ma léegi léegi nga tëj ma mais kii dinaa ko rey te boo bëggee dox sama diggante ak moom ma reyaale la. si ce qu'il a dit au parce que bi muy rey sama papa dama cee teg sama Oh. mu ne ko kii tant que mu ngi ginnaaw raay ma nekk su may su may teg ma bët dafa koy rey. Oh. xam nga loolu dafa moo tax ma ne la. c'est-à-dire même même ni ñuy àttee sax wala ni ñu leen di parce que yow. koo xamante ni dafa yomb quand même ans. ren dafa ay ans nga bàyyi ko après mu génn. te moom la ñu gis am na ñu bëri ñoo xamante ni. ci cigarette saboté la. am na ñoo xam ne 2 ans la ñuy tëdd. génn dem après nekk di bandi bandi lu koñ bi ah. ñëw. ba pare dañuy gën a am fit parce que. dañ naan 2 ans dara ku ma yàpp dama lay c'est non peine de mort ku rey ñu rey la taxawal cinq gendarme kenn lay visé doo xam ku lay visé nga jig sax dégg tell gi <laughs> ñu suul la ñu noppalu mën na lii laa gis. non c'est c'est grave. su fekkoon dañ lay def peine capitale à perpétuité nga des fa. d'accord mais dañ lay. jàpp bu ñu lay génnee sax kenn du ko yëg am na ñoo xam te ne seen sax kenn du ko xam ah, tey jii ñun waaw ñun ñii personnes yi bu dul nabu bi nga ci xàmmee parce que moo ci gën a fës ñu bëri xamoon nañu mel ah. tey mën na leen tëj deux ans ñu génn ngay fréquenté ak ñoom doo sax xam ni en fait ce sont des tueurs benn nit ans de prison ferme benn nit boo xamante ne dafa am ku doon xeexal bugguma si détour bi parce que dañu xamante man moom baax a baax te mu may mun naa lu bari mm-hmm. benn nit laa a gis mu tëdd 10 ans foofu ginnaaraay dafa am ku doon xeexal jam ko kooku dee ñu jàpp teg ko 10 ans fan yii la génne 10 ans la tëdd à part ça

ku ne 250 guddi du tabax. dina tabax kay ah, a tabax non en fait munoo munoo dem ci prison dem ci benn cellule non c'est pas possible munoo fa fekk sàcc ku sàcc ak ku rey nit munuñoo bokk. fu ñu nekk ba pare euh, loolu mooy indi sax tey sàcc bi boo ko dugalee mu def fa un an fréquente ay reykatu nit bu génnee. day dépasser niveau sàcc. dañu waxante dëgg. prison c'est pas des prisons correctionnelles c'est des prisons yoo xamante ni

Comment c'est quel genre de média les sites internet là depuis euh, problème Aziz chaque jour site bu dina dem Aziz sa famille c'est vrai que droit wax mais tu vois que ils ne parlent pas parce qu'ils euh, parce qu'ils veulent vraiment parler mais ils ont besoin de parler Des journalistes ils ont besoin de voir des spécialistes Il y a ngi def euh, déclaration

man defuma dara yuuxu jooy xam nga tu vois que la fille elle est très très traumatisée mais du journaliste ici, la wara waxal. en ce moment il faut que si psychologue. dafa metti parce que là là là là là. dafa l'heure est grave en fait. j'ai j'ai suivi ça juste pour dire que amitié bobu non depuis ñata ak tu vois donc amna yenn yo xamantene donc ak bon sens sax. De mm-hmm. la caméra. may yow fekk. yaay ji mi ngi naan du mës wax lu ñaaw ci Nabou. parce que daf ko gis mu màgg ci kanamam. donc tu vois situation bi dafa compliqué ba il faut que ñu arrêter aussi di ut ay vues à travers le malheur des gens il faut que ñu arrêter aussi di profiter tey ku bëgg am vue ci TikTok wala ci ce euh, réseau yi da ngay afficher Nabou afficher Aziz commencé di ci def commentaires les gens ils vont venir en masse parce que c'est l'actualité Les gens ni ñoo surtout le frère de Aziz euh, affaire bi avec ses yeux mou mu nekk témoin ñun ñi gisul situation mais sax on est mm-hmm. traumatisé bah donc ki ci yam ak ay il faut que aussi état bi mettre en place ay dispositifs yo xamanteni ni ku dund genre traumatisme yoy dinañ la ñëw encadrer la accompagner des amis ndeysaan on parlait au téléphone mm-hmm. depuis le meurtre ba légui nii gëmul mm-hmm. bët bok xolé xoolee dafa dafa c'est dur il peut pas mënul nelaw parce que néna mom bu rek Mhm. non mais c'est extraordinaire. c'est très compliqué c'est très très compliqué les gens on en profite mais j'ai pour def Ben genre promotion ak une ni mel vu une ngay avec ak euh, peut-être plus de visibilité il faut pas c'est pas bien metti na Sénégalais ils ont le droit de savoir ouais bi mu amee ak léegi euh, ñi nga xamante ni ñoo war a def enquête bi ñu koy def ñi ñu Tech loxo teg nañ leen loxo ils sont encore présumés innocents parce que tant que euh, ay daan teguwul sen kaw euh, présomption d'innocence mom day day day plané ci sen kaw. mënuñu ci dara am na espérer toujours que nabu bañ ci bopp parce que malheureusement pour elle mom mo gënoon djégé Aziz mom mo gëna fess fës. moom moo ci lieu de du crime bi. mo woté enquête né nañ muy doon wax ak ki nga xamante ni moom moo Aziz ki ñu wax ni moo rey Aziz. Mm-hmm. mu ngi doon wax ak moom jour crime bi mu ngi doon wax ak moom ba quatre heures du matin. neexul neexul neexul euh, défendre aussi c'est compliqué c'est compliqué mais quoi qu'il en soit euh, nañu bàyyi yoon def liggéeyam te aussi état bi jël ay mesures encore une fois aujourd'hui c'est Aziz moom moo siiw moom lañ xam waaye ñi ñu rey ci semaine bi bëri Il mm-hmm. y a beaucoup de gens yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan arme yi ñi ñi di doxantu tantôt permis de port d'arme c'est-à-dire que tamit mënoo nekk sénégalais lambda joteeg Momo. fekk na yore na pistolet. takkar naa si dafa waroon am. takkar naa foo tourné ñu jàppale ko nga am carte d'identité da nga ñàkk am carte d'identité. Euh, am na ñoo xamante ne nag ils travaillent la nuit. donc euh, mais. Euh, mais contrôle la xool lan nekk sa saag lan la yore il faut donc il faut que ñu jël ay mesures yoo xamante ne ce sera des mesures drastiques, hein, donc, parce que là, l'heure est grave. Hein. Très mais Non, mais on a, on a... man, je ne sais pas si... mon instant est man man ça, ah. Hein. kenn nekkul ah à tout à. <laughs> est non en fait c'est c'est. en tout cas réalité euh, c'est tout ce réalité banlieue et voilà. non c'est pas que la banlieue. c'est pas que la banlieue mais dafa faut ni dafa dafa a fréquent rek. fréquent non mais les na surtout ci ay jamono waaw loolu moo tax ñu ne ragal du jéggi raay tër nit ren yi ci raay bi hmm. dafa doon am ñuy toog guddi ci raay bi guddi gi boo rombee ñu ñu ñu ñu nangu li nga wax. ok loolu mooy ragal du jéggi raay. non mais c'est extraordinaire mais léegi léegi amul léegi léegi léegi loolu amul depuis depuis.